الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك نخلا لتخرج الناس nit ñi boo leen bëggee génn ci lëndëm yóbbu leen ci leer ci alxuraan nga koy jaare wa jaahidhum bihi jihaadan kabira alxuraan ci ngay jihaat ak nit ñi kon alxuraan bul ci yam ci sa bopp waaye da nga ciy woote da nga ciy ginde waaye alxuraan jooju itam nag da nga ciy saafara sa jàngoroy xol xol yi feebar gi ñuy feebar fii qulubihim maradun xol yi day feebar ak rëy ak coxar ak yëg sa bopp ak bëgg àdduna yooyu yëpp ay feebar la yuy ne ci xol te kat borom bi nee na yowmal xiyaam kii mucc mooy ku ma ñëwal xol bu wér waaw yowma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allah bi qalbin salim boo ñëwee dañuy passé visite sa xol de ndax ak agré ngi ci ndax kiñaan a ngi ci ndax coxar a ngi ci ndax nay ngi ci ndax bëgg addunaa ngi ci xol bi set wecc xol boobu nag lu koy faj alquran wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifa shifa qad jaatkum mawisatun min rabbikum wa shifaun lima fi sudur shifaun lima fi sudur kon da ngay faju ci alquran faj sab xol ci alquran waaye itam nag ni mu ko doon waxee da ngay ta alquran daa war di jeexiital ci yow nag soo ko dee dégg moo tax alxuraan fu ñu koy jàngee te mënuñu koo déglu dañu ko war a arrêté léeg-léeg ni ñuy def ci jotaay yi teg bandum alxuraan muy jàng ñuy waxtaan kooku musiba la musiba la bu ñu dañoo war a wax ndax ndax pare ngeen ñu lépp nu déglu alxuraan ñu ne waa ñu teg band bi alxuraan waruñu koo jàng fenn ñuy waxtaan ndax boroom bi nee na wa isaa quri alxuraan fastami'u lahu bu na teg ci wa ansitu la'allakum turhamun ndax ñu yërëm leen lépp lu yàlla diggee yërëm ba ne léey tax ma leen loolu jàpp naa ne ku ne war nga caa góorgóorlu وتكون من ألم يأني للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمر فخست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ندخ دفا جوتول نك سين خولي بو جانغاتي القران سين خولي تيت إذا تليت عليهم آيات وصارهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون إنما المؤمنون الذين إذا سكر الله وجلت وجلت قلوبهم خولي دي تيت كون يي موم لا القران nañu ko gëm ne lii waxi yàlla bu ñu ko la wax kenn même yonente bi sallallahu alayhi wasallam duy waxam wax yàlla la ñaareel ba nañu koy jàng ñetteel ba nañ koy jéem a mokkal wala nañ cay mokkal lañu man nañu koy déglu keneen di ko jàng nañu koy setantal nañu koy topp nañu cay gindiku nañu cay saafaraw nañu cay woote waaye nañ ciy yëg sunu borom di ci toroxlu ci alquranul karim muy fukki yi lañ seq ak moom waaye nag alxuraan nit ki dana ko jàng ba noppi ba noppi na ñu coupé xolam mooy kii xëcc ci courant ba pare ñu coupé la sa kër tàkkatut waaw damay misaal ne kër góoróom bu guddi danga nga naan ñaara yëf am benn kii daa xëccul courant wala daa xëcc courant fayul ñu coupé ko Serigne Touba nag yi tax ñu coupé la lim na ko wax nañ ko nee na juróom-ñaari yëf la waaw ndax nee na kitaabu xayril wara aslul ulumi maan nee na xam-xam yépp seen ndey mooy alquran huwal kitaabu lasi man raddahu xurima nee na mooy téere boo xam ne koo fi bàyyi ñu xañ la lépp luy aw yiw ku fi bàyyi alquran mënatoo jëriñu ci dara mu ne maa saddani anhu asyaun tuaddu ila sabi razaili saddat kulla man xurima zanbun wa kibrun wa israarun ala laibin xubbun li dunya atimaadun lil wara nahama du'ful yaqin allati saddal bariyata an tawakkulin wabtidaa'un tarku zi xotima waaw bu jiitu bi bi tax yàlla xam nga yàlla ne xatama allahu ala qulubi yàlla day coupé xol xam nga seen nag boo leen fay du ñëw di wekki say piil de kontóor ba seen dab ne ko kare dara duutu tàkk <laughs> waaw yàlla itam boo toppul alxuraan bi ñëw di làggil say tànk ba dootoo ma de dem jàkka déedéet xol ba lay coupé xol ba dul bëggatee dem jàkka tànk yi mën naa dem mais du dem mais bi mën naa tàkk mais du tàkk ndax courant bi ñëwul tànk yi itam mën naa dem jàkka mais du dem ndax ngëm yàlla gu ko alimenté nekku fi. coupé nañ ko bët yi bët yi xam yoonu jàkka. bët yi xam bët yi duutu xam na yoonu jàkka mais duutu fa mën a dem. xatama la ala qulubi wa ala sami wa ala absarihim xisaawa nee na bari bàkkaar boo bari bàkkaar te tuuboo ko loo bay ba ngay kaang muy tari alquran bu dégg bëccëg te dëkk ci bàkkaar alquran du la jariñ dara. wa kibrun ak rëy ak rëy ku ñu wax nga ne mënu maa waar bëkk démb la fi judd kenn ku ne nga xeet ko diine moom kenn mëggu ci kenn diine kenn magu ci kenn kenn ku ne fi ne ko fekkee noonu nga koy bàyyee wa israarun ala laibi nuur ci mpo xam nga adduna bi ñi bëgg a sànq nit ñëpp am po lañ leen di def lo réew moo dem am na ministère de l' sport boo ministère boo xam ne mpo rek ko tax a jóg te ministère bu alxuraan wala diine amut mais ah bu ñu watee budget ba da dégg dégg ministère bu ne na ñëw mais kuy ñëw di défendre budget diine doo ko fa dégg waaw ah, wax daara alxuraan yeeg jàkka yeeg seeni soxla yooyu amul ci réewum ay jullit te am na kuy ñëw di défendre sport ba làmb ja lii la war a am football ba lii la war a am ah ba lii la war a am waa alxuraan lu war a am nag moom dara ah moo tax mu ne is nuur ci mpo bi ci des mu ne xubbun li duniyaa bëgg adduna nga xam ne yow sa réussite bépp ci adduna nga ko teg li ngay natt nit ku avancé mooy adduna ku la romb oto bu rafet nga ne diw de réussir na moom waaw xanaa gisoo këram nga te kat boo demee sax du julli day faat waxtu yëpp teewul nga jàppe ko yow kuréel mel na fii dong leen jëm si woon déedéet fii fii dañ fay romb di jàll rek fii réussite nekku fi waaw fii réussite nekku fi ixtimaadun lil wara bi ci des nee mooy sukkandiku ci bindee fii nga xam ne yaakaaroo yàlla yow nit nga yaakaar nee loolu day tax alxuraan du too ko jariñoo bi ci des mu ne doful yaqiin wóoluwoo yàlla nit ñi bari dañu gëm yàlla waaye dañ ko dul wóolu soo ñu nag yii yàlla nag wóorut yàlla moom yàlla yàlla bay sa tool loolu sax waruñu koy wax tool yi sax yàlla nee na ko bay afara aytum ma tahrusun a antum tasraunahu am nahnu saariun tool yi da ngeen jàpp ne bay tool tax naa ñu yoral dara bay lay saxal gàncax ga di ko sampal di ko meññal ci biir di ko defal ay xob nga ne yaa bay tool bi est-ce que yooyu def nga ci dara ah bu ñu wax ne yàlla yàlla nag bay sa tool foofu yaa tool bi bay <laughs> ah. boo ko fekkoon yaa ko bay kay bay nga ba sotu te léeg-léeg dara du ca baax boo tax mu ne law sa law ne saa la jaal naa xutaaman bu ma neexee ma def ko mbopp fasaltum tafakkahun inna la mughramun ngeen naan ñun ñoon ñàkk nan te fu daa bay ngeen ba sonn tool ba set na wecc te dara baaxut ah kon fekkoon ne boo tool ba setee rek baax ñu ne yaa ko bay borom mi ne afara aytum maa tahrusun xanaa gisu li ngeen di bay a antum tasra'unahu yéen a ko bay am nahnu saari'un wala man maa ko bay ah? kon nag yàlla moom lim du digal mooy sabablu waaye dañ ñu xam ne joxe moo koy def mooy joxe nee na fam suuf fii manaakibihaa wa kul wa min risqi dox leen ci kaw suuf lekk ci wërsëg bi ma fi def yàlla bi mu fi daataan andi nit ñi liñ fi soxla lépp def na ko fi wa qaddara fiiha aqwaataha fi arbaati ayaamin sawaan li saa'ilin xalqa samaawaati wal ard fi yawmayni asamaan seeg suuf boo gis noonu juróom benn fan ñaari fan la ko bind juróom ñeenti fan yi ci la ko rabitaaye wa qaddara fiiha aqwaataha fi arbaati ayaam boo ko booleeg ñaari fan yëpp ko bind muy juróom benn fan ñu ne xalqa samaawaati wal ard fi sittati ayaam waaw ñaari fan ci la bind asamaan ak suuf rabitaayee ko ci ñeenti fan liñ fi sox lépp fii bu aataakum min kulli maa sa'altumuuhu wa in ta'udduu ni'matallaahi laa tuhsuuhaa lépp loo xam ne bu ngeen ko xamoon laaj ko ne yàlla boo na fi defaloon nangam defal naa leen ko fi fi ne bari na lu ñuy ñaan loo xam ne yàlla jox nañ ko ba pare noo ko jëlut xam nga am nag andee ci war a topp waaye yàlla ne am fi ne yàlla nee na nu am noo niwul andi waaw banque suñu loxo naan yàlla jox ah <laughs> déedéet yàlla jox na lu lim ñuy kon nak yalla nu yalla defal tawfiq nañu japp daara ji bu baakha baakha baax jangalo ci xale alquran ndax euh, dom ji jang alquran kat bu ko kenn jappé bu sax ñu bari dom ji bu ñuy dañu wax sa dom ji mom lum lum nara doon bu ëllëgee fi kuy jang ñu naan lan la wara jël ci jangam mii bu ëllëgee wa yalla la war jël ci jang mi ki jang alquran ñu ah ki dafa xanaa bu ci jógee nodd ak julleeg rek lay def waye kenn xamul déedéet waaye lam cey jële bu ëllëgee yonent bi sallallahu alayhi daa wax ne ëllëg yowmal xiyaam danga gis way jur woo xam ne ñu di ko décorer di ko solal ay mbubbi leer yoo xam ne nee na bu ñu xayma woon adduna bi ci biir mënta jënd yére yooyu moom sax day waaru ne waa man fu ma jële li ñu ne ko bi ax si wala dikkum alquran seen doom ja jàngoon alquran ci ngeen am lii Sëñ Tuubaa koy wax ci masaalik waxay suma yu basmilu sabiyu في مكتب يهب له الحدي علي له ولوالديه براءة من ناره فتقدمه داكوي بيندال اك دنجي ساورا موكي وي جورو موتا بوروم ساتي بي ني يوم جان القران ماغ لاي ندوكيل هني ان مري ان والداك عليهما ملابس انوار من التاج والخلا نينا يوم جان القران سي وي جور مبوبي لير لا نيي سول مو نك كون نك كوم وي جوري ام لول كون دوم جان موم لوغي ياكار موم فما ظنكم بالنجل عند جزائي اولئك اهل الله wa الملائكه ñoñ mom yàlla da leen wax yene sama njabot kon nak dom ju jàng alquran teñ yar ko ci alquran borom bi tabaaraka taala teraanga jum ko defal ci aduna ay wajurum la cey jital bo leg nak lam ko meuna a jariñ àllaaxira ndax dom kat su fekke yow ak tekkeem do nga ci yaakaar li ci gën bari ba muy man dara yow dootoo ko talati waaw bu tabaxee étage mënatoo ca yek bu toogee ay lekk mënatu caa lekk boo faatu kon ñàkk nga ndax nga àdduna doon nga ko doon wut loolu moom xamul dara ci alaxira amma boo ko tegoo ci yoonu diine lag même boo faatu woon bàyyi ko fi tam la mu lay ñaanal ak la muy jëf ci lu baax suñu borom di la ca bindal sa wàll loola euh, xéewal gu rëy rëy la goo xam ne benn jullit war koo xañ boppam kon nag ñu ngi nuyuwaat mbokk yëpp yal na yàlla barkeel jotaay bi wa sallallahu wa sallam ala nabiina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain